jaajëfal nañ leen bu baax a baax suñu mbokk internet yu 5M TV Sénégal ci ànd bi ngeen ànd ak chaîne bile di wax ni rek ngeen di abonné waaye bu leen fàtte rek di bës saa su nekk cloche de notification bi jotaayu xibaar yi dañuy àddu rek ci lu ñeel mbiru nag 98 milliards yi nga xam ni sax kile di Bougane Gueye Dany jàpp na ni Mansour Faye moo ko daal di jël mu mel ni sax ab semaine a ngi nii rek kile di leader bu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany daal di rek lancé ab alerte jom rek ci euh, kile di jëwriñ bi ñu dénk wàllu dem bekk dikk bi di Mansour Faye di wax ni sax moomee nag dafa daal di luubal rek lu toll ci quatre-vingt-dix-huit milliards yoo xam ni da ko abboon rek ci turu Sénégal moom nag Bougane Gueye Dany eh, di wax ni sax loolee dina ci indi ay leeral tey jilee moom patron bu groupe de médias bi dina janook taskatu xibaar yi tey ji eh, ci alxames bi juróom-ñeenti fan ci weeru mars ci bu nag eh, cinq heures jotee maanaam juróomi waxtu ci ngoon moom Bougane Gueye Dany dina dolliwaat itam daldi rek aborder maanaam rek addu ci nag question wu violation des règles bi bile maanaam règle yi nga xam ne rek dafa nekk ci suñu wàllu démocratie bi euh, mu gis ni kile sax di njiitu réew mi da koy daldi di rek euh, violé mu mel ni sax communiqué boobee mu daal di génne rek lu ñu mel la ci daal di fësal la.